maaleykum senegal <clears throat> yi nekk it fële ci bitim réew di amaat euh, mbégte jàkkaarloo ak yéen fas yéene waxtaan ci ay poñ di wax ne ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm ci weeru gàmm gi ñu jógee ci màggal gi ñu jógee di ñaan senegal yàlla wàcc fi jàmm wàcc fi xéwal di wax euh, di massaw képp koo xamante ne ni am nga ku wàññeeku di massaw ñi am jafe-jafe di aussi wax rek na ñi ngi fëddali suñu kóllëre fépp fu Sénégalais nekk rek dem nañ fa wax la ne la ah ndokkale ci weer wi ñu nekk bi loolu weesoo tey suñu waxtaan dañ koy tàmbalee ci poñ bi ñuy wooyee affaire kilifa ak Simon affaire kilifa ak Simon balaa ma ci gën a xuus dama ci fàttali rek li gën a ndaw lu tuuti bi ngeen xoolee bi vidéo bi njëkk génnee kilifa dafa jël ay responsabilités am daal di ne man de comme am na lii lu demee ni que ñu génn ma ci vidéo bi damay arrêter lépp luy sama activité au sein de Y'en a kon pour nekk à la disposition de la justice pour aussi mettre tous les Sénégalais à l'aise pour que tout le monde mën a fas fair la part des choses qu'il n'y ait pas sur cette question naka noonu muy dem di dem di dem ba après Y en a génnee moom it communiqué am communiqué boo xam ne ñu ngi ko tëgg ci ñaari poñ premier poñ bi ñu ngi ko tëgg ci rappelé ne képp koo xam ne sénégalais nga ñu tudd la wala ñu gis la wala ñu dégg ci lu mënti doon dañu yaakaar ne ñun Y'en li nga war a def mooy nekk à la disposition de la justice pour justice mën cee def liggéeyam muy li war ñu jël ci suñu position bu responsable bañ cee tëddee njaaxaanaay bañ cee tëddee tëddum par parloo ne njaaxaanaay lañ ciy tëddee pour que na gaaw affaire bi dem justice ñu def ca la ca war donc mu nekk une position boo xam ne dañuy donte. gëm nañ ne ñun Sénégal ba ñu juddoo ba tey justice musu fi am musuñ ko fi yaakaar rawatina ci nguurub Macky Sall dafa gën a yées dafa gën a garaaw justice bi bu yaboo rek palais de justice yi ñu dem penture leen ñoom ñëpp marron beige te xam ne nekkatul édifice national nekkatul bokkatul ci suñu ay institutions de la république léegi c'est une arme c'est je dirais même palais justice yi léegi mooy le QG des marrons du feu parce que yet la bu nguurub Macky Sall di utiliser pour noot askanu Sénégal waaye ñu yaakaaroon rek ne sur cette affaire xanaa nag dinañ ci góorgóorlu tuuti kas néew wane ci tuuti sérieux mooy def ca la ca war waaye biñ ko xoolee jàngataat ko xoolaat ko jàngataat ko justice bi waxul dara ba keroog ëllëgu ñu xëy ñu ne am na ay député yu ñu tudd ci ab mbirum passeport diplomatique bi ñu leen tuddee ñoom ñu bëgg a créer seen contre-feu rek bogo bogo gaawantu woo kilifa mu ñëw ci deux heures de temps police bi mooy dikk seen xarañte ci enquête wane nañ ne taqewul amul benn rapport ak la ñuy waxal député yi ci deux heures de temps wane nañ ko naka noonu it wane nañ ne lañu waxtaanee ca vidéo ba ay visa ay passeport ak do wane nañ ne amul benn démarche boo xam ne ni kilifa jéego def na ko ci effectivement jéego maanaam lu ñu weesul bu weesoo lu waxtaanee ci biir oto amul benn jéego bu mu ci teg kon ñaari fan ñetti fan ñeenti fan juróomeeli fan ñuy soog a décider dañ koy téye pour ri est ce que escroquerie boo xam ne amul kenn ku porter plainte maanaam dañ laa jiiñ sàcc sans mu am ki ñëw jiiñ la ko maanaam yow procureur bi moo la jiñ sàcc mais amul ku ñëw ne procureur dañu maa sàcc jàpp waa ji moo ma sàcc porter ko plainte noo amu ca maanaam procureur moom moo jugé jàpp ne moom day jiñ kilifa sàcc donc li procureur moo waroon ñëw taxaw tribunal moom moom en tant que euh, costume ki jiiñ kilifa ne ko da nga maa sàcc quatre millions cinq cent ba noonu ca altine boobee la leen dem tribunal ñu renvoyé waat leen def leen def ko retour de parquet ca alxemes ja mu ñëw ay 15 heures avocats yi woo ñu ne ñu ah bu leen ko defagum public mais jàpp leen ne affaire bi incha allahu rabbi jeudi dinañ ko taxawal flagrant délit waaye yow ñun ñëpp ñu kontaan ne ah alhamdulilah. comme day dem flagrant délit parce que lii mënul dem leneen lu dul flagrant délit ndax lu ne fàng kenn du ko jeex ñu sawar ci lool yàkkamti ci lool parce que kilifa ak Simon am nañ avocat yu xarañ am nañ seen défense ñoom xam nañ ñu ngi koy matalee bu baax a baax loolu amuñ ci woon benn ñi xel ñaar waaye naka noonu lañ toog ba ay 19 heures rek ñu dëpp carte gi dëpp carte gi indil ñu ay accusation yu taxawul ci dara trafic de migrants trafic de faux Euh, euh, maanaam faux document xaw ma document administratif mais mais fan lañu jëm fan la Sénégal jëm xam ngeen la mooy trafic de migrants trafic de migrants tubaab yi ñoo ko créer pour jàpp ñi nga xam ne dañuy yett ay gaal di ci yàpp ay africain di leen yóbbu Europe looloo taxoon tubaab bi créé boobu loi ci biir Union européenne jox ci ay ndàmpaay yu dun suñu ngornement yi ñu téye ko pour nee na ñoo yaay dañuy xeex loolu ñooñu la ñu créé loolu loi boobu noonu parce que boo ko xoolee waa léegi tubaab bi nga xam ne dafa toog nii rek tey moom daal di dugg Google ne man de dakaar laa bëgg a fanaan yi suba moom day dem rek jënd billet ñëw fanaan si dakaar kooku moom mu ñëwee xam lu ñu koy woowee touriste après ñu ne ko expat après ñu ne ko étranger wala en tout cas dinañ ko rafetal mais bu dee nit ku ñuul la moom moom migrant la moom clandestin la moom daal turu xar yëpp nit ñuul lañ ko tuddee turu rabu àll yëpp nit ku ñuul lañ koy tuddee suñu ñàkkum fayda dirigeant yi ñu non seulement ñu nangu sa terme là mais ils utilisent cette loi là qui a été pour encore humilier les Africains pour les remettre encore def leen ay individus de seconde zone pour defaat africains yi ay rabu àll ay buubu golo tubaab yi créé boobu loi imposé ko suñu ay dirigeants suñu dirigeants yi di ñu ko daanee ñun ci suñu réew te ñoom tubaab bi bañ daan ñëw di indi seen i gaal yatt ko jëlee ko Europe di dugg si ñoom loolu légaloon na ñoom bu leen neexee bu ñu ñëw ñoom loolu légal na ñoom duñ abbu visa duñ ñaan visa duñ ut visa d'ailleurs sax Macky Sall bi mu fi tegee visa tubaab yi dañoo kaas ne cinquante euros dafa cher wala cinquante euros daal ñoom tayal nañ koo def parce que pap papier yi dañoo bëri dangay bind fii bindaat fee pour mën a ñëw ak yooyu Macky Sall dindi visa yi le jour 4 avril jour bi ñuy fête suñu indépendance mu dindi ko alors que ñun bu ñuy ut visa dañuy rang ci naaj bu tàng bi dañuy rangaloo kayit bi nañu certificat de décès sax dinañ la ko utloo nga fay sa xaalis te wóoru la di am te ñoom quelque que alpha tubaab bi su déposé woon visa amul benn tubaab bu ñu ciy refusé le visa am allah kulli da koy am par force. léegi ñoom ñu kaas loolu Macky Sall dindi ko mais Macky Sall moom nangu na ñu créer ko ay loi yu bëree bëri yu ñu jël tey di ko daanee askanu Sénégalam kon ñu jëm ci ne Kilifeu ak Simon yéen ay trafic de migrants ay faux document de faux nangam ak nangam te ci biir l'enquête yi amul fenn fu wéeru ci loolu biñ leen di jëlee police di leen yóbbu mandat dépôt sur la base de escroquerie lañ yóbbee kilifa kon dama bëgg sénégalais yi ngeen wax ma. lii ci lan la tegu waaye ba tey ñu ngi patient ñu patient ne ah ok comme demee na noone naka la justice bi di réagir am nañ yaakaar xëy na bi buñ ko ko joxee dana dana ci indi euh, saytu ak tontu bu bu bu responsable waaye luy gën a pire juge bi dafa leen sax refuser demande de liberté provisoir te ku ne xam ne kilifa ak Simon fii lañ dëkk ci réew mi. dawuñ puusuñ paasuñ musuñoo dem feneen mun nga leen bàyyi di toog seen kër mais excuse bi gën a ñàkk fayda bi juge bi joxe mooy trouble à l'ordre public mën naa am bu ñu leen bàyyee mais man dama bëgg ngeen wax ma Sénégal kan nañu yàpp yow am na koo xamante ne nii ñu ngi ko jàpp mu ne moom yàqu nag ay xaalis bu dul jeex ñu may ko liberté provisoire mu ne moom sax maire na bëgg a doon kooku indi na lu gën a raw trouble à l'ordre public indi na lu gën a lu gën a ñaaw trouble à l'ordre public parce que dafa ñaawal suñu justice dafa ñaawal suñu ay institution dafa dafa nasaxal dafa dafa dafa dafa ndëgg sërëxal lépp luy justice ci réew mi waaye moom mën na am liberté provisoire te du moom rek am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne nii buñ amee couleur marron beige ñoom lu leen neex mun nañ ko def ci réew mi buñ demandé liberté provisoire teg ko ci ay feebar yu tegul fenn teg ko ci ay yëfu caaxaan teg ko ci ay kenn xamul ñoom mun nañ leen koo may ñoom mun nañ leen nangul seen ay affaire waaye ku féetewul ci wàllu wale ñu indi la ci ay problème ba ci koo koy leen di Bougazelli li ci gën a garaaw ñu génne ko moom vidéo ci saa si mu attaqué la gendarmerie nationale ba cité ay turu gendarme la lendemain gis ngeen ko ñu commencé l'enquête jaxase carte gi topp takk der yi di xool fan la vidéo boobu jógee waaye kilifa moom déposé na plainte depuis le depuis le 13 septembre la kilifa euh, déposé woon plainte am barki démb lañ koy soogoo a déglu ko ci plainte bi mooy jour bi ñu ko refusé demande de liberté provisoire bi mook Simon ba tey amul benn suite kenn topp ci kenn yëgaatuñ fuñ ci ooyee keneen dégguñ ci feneen leneen lañ ca wax yéeyuñ ca yàbbiwuñ ca mu leer ñëpp ne liñ bëgg mooy nasaxal ko forme lañ doon def mais narut mujj fenn mais walaay dañ ne kon ñun. ci ban réew lañu nekk ci ban Sénégal la ñu nekk loolu la bugg bëgg yi ñu wax ñu ko bu ñu jógee ci loolu soo xoolee ni ñu ni ñu ni ñu gaawantoo bogo bogo ko fexe kërëb kërëb mais depuis quand un député au Sénégal dañoo war a sulli wala yëkkati malaanu kiiraayam muy def une semaine kenn la yëkkati malaanu kiiraayu député daan def une semaine waa xanaa kon Khalifa Sall moom doon député waa xanaa kon Ousmane Sonko moom doon député wala kon boog assemblée dafa am député yoo xam ne ñoom ay député à part lañ wala ñoom ay député plus lañ ak ay député moins léegi réew mi dafa am député plus ak député moins ba ci communication bi ñoom dem nañ ba ne. non commission ODAP warul wane waruñu wax la xew ca biir waxtaan wa ba tey nee nañ xëy na suba ñu ñëw ñu déglu leen entendre leen nguur gi kan lañu yàpp ñii kan lañu yàpp parce que dossier boobu noonu yooxu dina jib fu ko kenn foogeewul ndax lu toll ne passeport diplomatique te encore une fois dama bëgg leer kilifa ak Simon biñ leen enquêté leeral nañ ko ci biir police bi ne amul fenn fu ñu taxee ci passeport diplomatique parce que passeport diplomatique dama bëgg ñu indi tuuti suñu xel Macky Sall moo koy signé ministère des affaires étrangères lay jaar Simon ak kilifa fan la ñu amee accès ci document bu ñu war a mën a yóbbul Macky Sall mu koy signé Simon mi naan ko yaa tey defal lu la neex yaa tey wax ko ay gilaawaaleem wax ko ay njaaxumam kilifa mi taxaw ne Macky Sall saay-saay nga bu pataa bu duuf bu ngand bu ponkal fan lay amee signature Macky Sall ci ab document officiel ba war a mën a defaral ay nit passeport diplomatique ñu dem fan nañ ma wax fan lay jaar kon mafia bi am ci passeport diplomatique pale la tàmbale wàcc ci structure yi wàcc ci mairie yi parce que ay faux mariage la ñu defar ay faux mariage la ñu defar wàcc ci même koy jaay timbre mariage ba sax kooku dañ ko war a dem saytu ji xooli ko parce que mafia bu rëy rëy la et tàmbaliwul démb tàmbalewul barki démb lu yàgg ci miim réew la moo tax ñu nekk ci di jël seen temps di doo dàqeek askan bi di fontoo askan bi di këy di nangam di kërëb kërëb mais nag notre patience a des limites les sénégalais sont fatigués et on en a marre on veut que ces affaires là soient élucidées le plus rapidement possible yóbbu leen kilifa ak Simon ci kanamu juge ñu toog ñu wax ils ont leurs avocats ils ont leur défense mën nañu défendre seen bopp nous demandons que à ce que ñu taxaw ñu juger leen loolu la ñu bëgg nañ leen juger le plus rapidement possible bu ngeen leen mënul juger le plus rapidement possible ngeen may leen liberté provisoire ñu dem toog parce que xam ngeen li ngeen def xam ngeen lépp li ci top xam ngeen lépp la nekk ci biir dossier bi il faut qu'on arrête soyons sérieux et que ces histo cette histoire des députés sénégalais yi leen di artu di leen waxal Macky Sall sénégalais yow la ñuy waxal yóbbu leen député yi ci yoon nit ñi xam mbir mi demee parce que sénégalais jaratul dara ci askanu Sénégal ci àdduna bi. nekk sénégalais daratul dara ci àdduna bi dara parce que institution yi amatuñ fulla institution yi amatuñu fayda respecté tuñu kayit respecté tuñu document mais dara ci réew mi Sandaga sax moo gën a organiser gouvernement wu Sénégal mais mbëbës mbëbës moo tane assemblée nationale ci organisation vous pensez que ça c'est du sérieux chaque fois scandale au plus haut sommet de l'État du am suite du mujj fenn ay audit épingle nit ay cour des comptes épingle nit mais yooyu yëpp dafay nax saay ay milliards Sénégal waaye bu féetee ci koo xam ne ci opposition la nekk du fanaan waaye bu féetee ci koo xamante ne nii day taxaw di yëkkati kàddoom du fanaan moo xam lañ koy waxal dëgg la moo xam lañ koy waxal du dëgg waaye di ngeen ko téye di dilatoire comprendre nan nekk seen jeu ndax Macky Sall bi nga tegee loi ne képp ku yëngatu ci réew mi terroriste laa lay jiiñ bi nga toogee nga ne li fi xewoon 8 mars dootu fi xewati si nga teg sa loi si nga renforcer sa police si nga dàq ay cadre ci police bi indi ñeneen ña nga xamante ne ni mun nga leen utiliser comme ça ay foykaay si nga nag ne xaaral ma def chasse boo xamante ne nii activiste parti de l'opposition blogueur facebooker liveur yow bàyyiwoo sax kuy jaay caaf kuy jaay sax jaay caaf sax laxasee ko kayit boo xam ne dañ ci bind non à Macky Sall pare nga pour jàpp koo kay